لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki jullit yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci lu ñuy tuddee ashukurul xaqiqi lan mooy dëgg-dëgg sant ñu ngi toll ci jamono joo xam ne sant siiw na ci làmmiñu nit ñi bal am na ñuy woote ñu santale leen lan mooy sant mu nekk jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nga xam ne jullit da ko war a xam xam leen ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu sant ci ñu sant ay xéewalam ci xéewal yooyu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko baaxe daa di ne sant leen samay xéewal su dee na man ngeen di jaamu aaya boobu dañuy jàngal rek ne ki nga xam ne du sant xéewalu yàlla xawma ku muy jaamu waaye jaamuwul yàlla loolu la sant sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ay yow yonent yàlla bi deel jaamu yàlla te bokk ci ñi sant yàlla wax ak yonent yàlla Muusa na ko Muusa tànn naa la ci nit ñi def la ngay yonent tànn naa la di wax ak yow directement ngay dégg kon jëlal li ma la jox waaye bokkal ci ñuy sant seen borom sunu yonent ba Ibrahim alayhi salaam sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne Ibrahima day mi ngi noonu royukaay la woon bu doon jaamu yàlla bokkaale wu ko ak dara waaye ku daan sant xiiwili yàlla la sunu borom nee na maa ko tànnoon jubal ko ila sirati mustaqim mu wëlbatiku ci suñu maam ñun ñëpp xam leen ne ñun ñëpp aadama alayhi salaam mooy suñu maam waaye gannaaw aadama ñun ñëpp yeneen ki yàlla nuux ci moom lañ cosaanoo nuux moomu suñu borom ba muy wax ak bani israil nga xam ne seen maam la ni nekk suñu maam daf ne ey yéen njabootug yonent yàlla nuux moom day innahu kaana abdan shakura nuux day jaam la bu daan sant yàlla ey yéen mbokk julit yi xéewalu yàlla mi ngi taw ci ñun guddi ak bëccëg mi ngi nekk di tegeloo looloo yey ci ñu war a sant suñu boroom subhanahu wa taala rafetal jëm ci moom comme ni ma rafetale jëm ci ñun mbokku xiiwul yàlla suñu borom nee na su ngeen toogoon di ko jéem a teeg buñ jëfandikoo woon lépp luy informatique ak lu mu mën a doon kenn ci yéen du mën a dem ba teeg xiiwal yi yàlla def ci moom li am kay mooy doomu aadama mooy zalum kaffaar zalum mooy xiiwul yàlla yi tegu ko fa neex yàlla waaye kaffaar mooy ki nga xam ne weddi na boroomam bi nga xam ne lépp xéewal ci moom la jóge mbokk lan mooy sant yàlla sant yàlla nañu xam ne sunu borom yàlla da koo séddale ci loo xam ne moom la ca làmmiñ ba di def ak loo xam ne moom la ca xol ba di def ak loo xam ne moom la ca jëmm ja di def la nga xam ne moom la ca làmmiñ ba di def mooy foo mën a toll del sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne moom la defal moytu ci ñi nga xam ne boo leen nuyoo laaj leen ñu ne ñi ngi sant keneen ku dul yàlla wala bañ a sant seen borom waaye sa xol bi it na yëg ne mbooli mi xiiwal yoo xam ne mi ngi ci yow mbooli mi xiiwal yu nekk ci keneen kenn rek la jóge ci yàlla kese subhanahu wa taala la jóge amul keneen kuy xéewal ku dul yàlla du abubakar du omar bal du sunu yonent muhammad alayhi salaam du jibril mboolem xéewal nga yëg ne ci yàlla la jóge waaye ñetteel bi mooy xéewal yooyu la yàlla wërsëgal nga taxee teg ko fi neex yàlla jalla waala yàlla may na lay bët xañ ko ay millions santal yàlla ci bët yi nga cay xool la ko ca neex may na la ay nopp xañ koy million may na la ngay jóg di mën a dox ay million mënuñu jóg taxaw waxumaa di dox may na la ay xel dof yaa ngi ñi di wëlbatiku su ko defee kon lu nekk nga xool fa neex yàlla nga jëfandikoo fa soo paree su jëmm nga dem ci sa alal alal ji nga xam ne bu dee 1000 francs bi nekk sa poche ak milliards yi nga bàyyi ca compte bancaire ba yépp a yem amul loo am lu dul ci yàlla la jógee kon wëlbatikul xool fa neex yàlla nga sant yàlla mooy lan mooy nga teg alal ja fa neex yàlla suñu borom yàlla nag nee na wa qalilun min ibadiya shakur lu néew samay jaam ñoo may sant ngan la waaye fexeel bokk ci ñu néew yooyu ay yéen bokk julit suñ borom moo jëkk a féete woo nekk sant kat heure bu la santee dara nga def ko benn tuyaaba mu ne malaaka yi bind leen ko fukk heure boo xamee ni nii def nga la ko neex mu sant la tagg la ci kaw kanamu malaaka yi bal dugal ci xolu jaam yi sax ñu lay sant ca loolu itamit dañu jàngal ne suñu borom ay xéewalam dana ko joxe waaye léeg-léeg mu jaarale ko ci ay jaam bu yàlla jaaralee xéewalam ci ab jaam ngal la waaye santal yàlla waaye santal jaam boobu yàlla jaarale xéewali ci moom moo tax yonent bi alayhi salaam ne laa yashkuru llaha man laa yashkuru nas ki nga xam ne santul xéewal yi yàlla jaarale ci nit ñi mu jëm ci moom bu santul nit ñooñu sant yàllaam nekkul lu mat ay yéen mbokk julit suñu borom sant nañu ci téeréem bu tedd bi ñu sant ko ci façon yu bëri sant nañu ñu sant ko bañ koy weddi mu ne sant leen ma bu leen may weddi sant nañu ñu sant ko mu ne su ngeen ma santee du ma leen mbugal suñu borom yàlla mu ne naka laa leen di mbugalee ca yéen a ngi sant la nga xam ne mooy samay xéewal loolee itamit lu mu ñuy jàngal mbokk mooy nekkati kon sant yàlla mooy lan mooy nga yëg ne yàlla kat moo la moom moo la bind mooy ki lay digal mooy ki lay tere heure boo xamee ne nii digal na la sant yàlla muy nga jóg masalan yaa ngi nekk sa biir nelaw ànd ak sa wér gi yaram nga dégg naddukat bi daal di bakk yàlla tagg yàlla daal di ne hayya ala sola ndax gaa yi sant yàlla mooy nga xëccaat sa mbat ji daal di lemu waat déedéet sant yàlla mooy nga jóg daa di dem jàppi wuy ji yàlla ndax am na ay jaami yàlla yu bëri tey ñu ngi paralyser seen kaw lal wallahi buñ jëloon àdduna li ci biiram jox leen ko ñu jógoon ànd ak seen wérgu yaram moo leen ko gënal kon sant yàlla mooy nga dem ca loole loolu itamit sant yàlla mooy lim la tere nga bàyyi ko moo tax suñu borom ne naka laa leen di mbugale ci yéen a ngi sant ca yàlla day aji santaakoon la ca xam ne it jaam yi koy sant mooy shakiran alima mbokk da ngay gis ne soo bëggee say xéewal sax soo bëggee say xéewal yokk soo bëggee say xéewal barkeel ngal la waay la la yàlla wërsëgal néew naag bari na dee ko ca sant sunu borom yàlla mu ne ba sa borom day addoo ni fii yëg yéen a ngi may sant danaa leen dolli waaye fii yëg yéen a ngi weddi samay mbugal lu tar la loolee comme ñu bàyyi ci xel bu baax heure boo jàppee ne keneen la xéewalal ku dul yàlla wala heure boo gisee ne kat yow bokkoo ci ñu yàlla xéewal suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na samay mbugal lu tar la amma bu sant gat matee xamal ne fokk yàlla du deñ di la yokkoo loolee mbokk da ngay gis doomu aadama yi wëlbatiku nañ ko tey ci keneen ku dul yàlla da ngay jégg ñu ne sëñ diw loo ci def ren bu déwénee defal lu ko ëpp ndax loo def ci moom mu defal lu ko ëpp wallahi mbokk julit loolu wax la joo xam ne sëñ diw moomu ñu ko doon askaneel bu dekkiwaatoon ba dégg ko dana taf ay noppam daw jël suuf xëpp leen ko ndax laa shakka ne lañ yaakaar ci moom mooy ku gëmoon yàlla la gëm yeneen ci yàlla la gëmoon alquranul karim la ca loolee daf koy woo ci mu xam ne mboole mi xiiwal ci yàlla rek lay jógee amul kenn ku ci am pexe ku dul yàlla jalla waala suñu borom yàlla boobu day mbokk julit la nga xamee ne mooy xéewal yi gën a rëy mi ngi koy jagleel jaamam yi ko gëm topp ko looloo taxoon ba yéeféer yi biñ daan wax naan waaw ndax ñii lañ jàpp ne ñoom la yàlla baaxe ci ñun ay ñi gëm yeneen ci bi topp ko sunu borom yàlla ne ndax man xamuma ñi nga xam ne ñoo may sant te la chaque année la nga xamee ne mooy sant gi gën a màgg ci kaw suuf tey moo di ne nga nangoo déggal yonent yàlla topp ay ndigalam loolu mooy sant gi gën a màgg boo xam ne yàlla dana ko baaxe jaam bi mu koy sant ay yéen mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala képp koo xam ne xam na ak cantam loolee dana ko yóbbu ci du nekkati mukk ci waaju bew ndax lan lay beewee bu dee xam-xam bi nekk ci moom yàllaa ko baaxe jox ko am na ñu ko gën a yàgg ci daara te xamuñu lim xam bu dee ne alal ji am na ñu ko gën a yàgg ci marché bi ak tukki yi ci amul lim am kon heure bu ko yàlla defalee xéewal mu koy sant loolu dana dind ci moom jukkoy bew ci kaw jaami yàlla yi dana dind ci moom la nga xam ne mooy jukkoy iñaan ndax day xam ne kat kii day na doon sama wujj la sama doomu bàyyi la sama dëkkandoo la kum mën a doon la ma am du pexeem du kattanam yàlla ko def kon loolee doo nekk di loo xam ne nii da nga ko koy iñaane mbokk suñu borom yàlla séddale na ay jaamam nee na ñaar rek la mooy inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura doomu aadama yaa ngi nii bind naa leen xiiwal leen teg leen ci ñaari yoon bii mi ngi jëm àjjana bii mi ngi jëm sawara léegi nag imma shakiran imma nga bokk ci ñi sant yàlla jëm àjjana wala nga bokk ci ñi bañ a sant yàlla jëm la nga xam ne mooy sawara ay yéen mbokk julit xam leen ne la nga xamee ne nii moom mooy cant googe képp ku ko def sa bopp dong nga ko defal sunu borom yàlla mboolem ñi teg jinne malaaka buñ daje woon bañ koo jaamu yàqul ci nguuram gi dara bu ñu dajoo woon ful seeni jaamu yokkul ci nguuram gi dara sa bopp rek ngay santal loolu moo tax ba doomu aadama war ngaa jéem a xam luy sant nga la waay xam leen ne sant dana séddili ko ci ñaari wàll wàll gi gën a màgg gën caa am solo mooy sant gi ngay sant yàlla def la jullit boole la ci jaam yi kay jaamu nga la waay xam leen ne loolu mooy xéewal gi gën a rëy ci kaw suuf bés mu nekk ma wax ko ak jeunesse bi amul kenn ci yéen koo xam ne dañ ne ko kaay bàyyi l'islam ñi jox la place bee Obama di waaj waaj a wàcc nga jiite États-Unis lu dul ne da ngay bañ dara jarul la bàyyi l'islam dem nekk ab yéeféer kon xam nga ne li la yàlla wërsëgal moo ëpp doole adduna ak li ci biiram ca naam mbokk xéewal dëgg-dëgg mooy xéewalu l'islam ci xéewal googu yàlla xam ne ko tey ay milliards milliards ci doomu aadama yi nekk ci kaw suuf kon bi la ci yàlla boolee santal yàlla nooy sant yàlla mooy la la ci yàlla xamal ci julli ya koor ya sarax ya naafili ya jàngal quran ya nga la waay bu ko sàgganee la la ci yàlla tere nga la waay bul dem di topp ci loolee gannaaw loolu mbokk jurit suñu borom yàlla nag yim ñi xéewal bari na yàlla laa ñu yombalal lu ñuy lekk yàlla ñu yombalal lu ñuy naan bu ñu lekkee ba naan ba pare yàlla ñu yombalal ñu mën koo génne ca douche ba lii lépp it da ngay gis ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg mu attiré attention doomu aadama yi ci ay xéewal mu xañ ko keneen ngiree bàyyi loola xel li nga xamee ne nii yow moom nga nekkee loolu moo tax ba ñu war mbokk jurit fu ñu mën a toll di sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewalam yi bañ caa xeb dara te xam ne amul lenn lu yomb lu dul yàlla subhanahu wa taala yombal dara yomb lu dul yàlla yombal maa ngi dégg tey la nga xamee ne nii gars yi di wax ceeb bi ñuy bay ci vallée bi naan des milliers de tonnes mi ngi foofu gisuñu ko ko jënd mbokk laajal mag ñi nga xam ne dañ fi doon dund ci jamono ay soixante dix jëm soixante quinze ceeb daana manqué ba dañ daan ran nga gis nit ñi benn dañ lay jox deux kilos ah nga man cee boobaa beneen nga koy mën a amati loolu lan moo ko waral mbokk suñu borom mooy yombal lu ko neex amul lenn loo xam ne yombal na lu dul yàlla moo ko yombal ay yow mbokk julit xam leen ni heure boo gisee ab jaam yàlla jox koy xéewal xéewal yooyu nekkul di ci sant yàlla ba pare xéewalee yokku xamal ne kooku day mooy jaam bu yàlla di ootal di yollu ngar ngiree gën koo mën a jàpp te mooy bokk na suñu borom yàlla nu muy mbugale ab jaamam mooy di yokk ay xéewalam loolee mu jàpp ne mi ngi ci yoon bu baax fekk ne suñu borom mi ngi bëgg mu daal di gën a yokku ci la nga xamee ne nii moom mooy ay bakkaar moom la suñu borom di wax naan sa nastadrijuhum min haysu la yaalamun looloo tax ba heure boo gisee nit ay xéewalam di yokku te gis na ko mu sàggane jaamu yàlla su dee am nga yërmaane yërëmal waa joojee mbokk da ngay gis ne bokk na ki ñuy yàlla gënoon a xéewal ci kaw suuf muy suleyman alayhi salaam yàlla def ko yonent jox ko nguur gu mu joxul kenn te dootu ko jox kenn bi ila yawmi din bokk na lu mu doon ñaan yàlla fu ma toll rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardaahu ay sunu borom yàlla na nga wërsëgal xiiwal gi nga xam ne defal nga ma ko yàlla na nga wërsëgal ma sant ko xéewal gi nga des ci samay waajur ma donn ko ci ñoom yàlla nag ma wërsëgal ma sant ko yàlla yàlla nag ma dëppaleeg ma jëf jëf ju baax ca la nga xam ne ni mooy xéewal gi ca yàlla yàlla nag ma boole ci sa jaam yu baax yi lii mbokk da ngay gis ne suñu borom mi ngi ñu ko jox misaal keroog ba mu toogee ca fële nga xam ne mooy Palestine daa di ne kan moo may jëlee lii toogukaay ba buuru Saba di toog ca Yemen mu nekk mille et quelques kilomètres benn jinne na bëxër ñett na ko mën naa koy indi léegi bala ngaa pare sa toogaay am keneen ku yàlla may xam-xam mu daal di ne Souleymane man kay mën naa koy indi bala ngaa xes këppi ñaan yàlla li nga xam ne mooy toogukaay ba jóge Yemen cëppeelu ci kanamu Souleymane lan la Souleymane wax hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfuru Souleymane mu ne lii day sama xéwlu borom la daf may nattu ndax dama koy sant wala damay weddi ca loolu bu doon keneen nga gis gaa yi ne ah walaay Souleymane amul morom nagam mbooloom ñoo mel ni waxuma moom comme tey li nga xame ni nit ñi fàtte nañ jaam fàtte nañ seen borom fàtte nañ seen xéwlu borom fu ñu toll ñu ngi wax sëñ diw nangam sëñ diw nangam amul morom amul morom yëkkati nañ ko teg ko ci kaw yeneen yàlla yëkkati nañ ko bal teg ko ci saw seen kaw borom jàpp nañ ne lépp loo xam ne mooy yëngal jamono tey ci moom la jógee jàpp nañ ne képp ko bokkul ci mbooloom nekkoo ci dara mbokk lii ay musiba la yoo xam ne ni doomu aadama yi la leen ko yóbbee mooy ñàkk a xam seen diine ñàkk a xam naka la ñuy sante seen borom yàlla subhanahu wa taala ay yéen mbokk julit nañu góorgóorlu delluwaat am na lu bari ci jaami yàlla yi yàlla dana leen may xiiwal ca fu ñu toll ñu ngi jàmbat taa doolu munta passé loolu mbokk julit lan moo waral loolu mooy dañuy xool ñi nga xam ne ñoo leen féete kaw mbokk suñu yonent ci alayhi salatu wasalaam dane heure boo jógee ngal la waay di xool xoolal ñi nga xam ne yaa leen tane loolu mooy tax ngeen mën a nga mën a sant sa borom yal na yàlla jéggal te yërëm suñu mbokk ba El Hadj Fajur Gueye mi ngi may netti lii ne ma dafa toog ak benn ci cadre Sénégal gi muy kaas non ces salaires là problème wax a wax a wax mu ne ko mais saa waay est ce que xam nga ñun bokk nañ ci 5 pour cent yi gën a baax lu ñuy salaire bu ñuy jot ci Sénégal waa ji toog ba mujj mu ne ko ah danga naan 1 pour cent wax dëgg bu ñëpp doon xalaat ñi ni ngay xalaate ñëpp daal nekk ci jàmm waaye mbokk da ngay gis loolu benn jeune ngi nii il a 500 mille 1 million de salaire par mois waaye soo ko fekk mi ngi jàmbat lu tax mooy amagul kër goo xam ne nii 100 millions la war a jar waragul oto boo xam ne 20 millions la war a jar waragul demagul ay voyage New York wala Paris wala feneen loolee moo tax ba mbokk lu bari ci jaami yàlla yi te yàlla xéewal leen mais foo leen fekk ñi ngi jàmbat suñu yeneen te alayhi salatu wasalaam bu ne ak yéene mbiri julit léppam yiw la heure bu xéewal dalee ci moom day sant yàlla heure bu natt dalee ci moom mu muñ ca loolu mbokk julit rek mooy ka nga xamee ne nii moom moo ko am ay yéen mbokk julit yi na ngeen góorgóorlu dénkaat seen bopp dénkaat seen soxna yi ak seen njaboot yi ngal la waay ñuy bokk di sant yàlla jullit day sant yàlla alhamdulillah di sant ay xéewalam heure bu nattu ñëwee nga xool la nga xamee ni nii moo fa def ci ay xéewal heure boo xamee ni nii ay nattu ñëw na ah na doon góor jigéen nga bàyyi ci xel kii di ummu umaara di nasibatu bintu kaab di jigéen boo xam ne jigéen góor la woon keroog xare Uhud ba góor ña dawee bokkoon na ci ñi taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jihaad di jihaad ba baa ñu gaañ ko fa gaañ yu tar mu jóge fa ñu yàq benn benn la nga xam ne mooy benn loxoom ba ñu jóge fa mu dem gazatu yamaama yàlla dogal ñu daal di fay rey la nga xam ne moom mooy doomam lan la wax mu ne alhamdulillah ñaari doom laa amoon ci kaw suuf ak ñaari loxo yàlla jël na benn doom ba ak benn loxo ba fi sabilillah bàyyee ma benn doom ak benn loxo ci xéewulu adduna alhamdulillahi rabbil alamin ma gaa yi ndax am ngeen gis ngeen yëgeen bi loolu nga xam ne góorub jigéen war nañ ci bàyyi xel kon nañ delluwaat santaat yàlla ci sunu xol yi gëm ne mbooli mi xéewal mbokk du jóge ci kenn ku dul yàlla booy sant santal yàlla xéewal yi la yàlla defal mënoo koo sant bay sant la keneen kooku du sa ndey du sa baay gannaaw ba seen làmmiñ yi na ci feeñ ñu xam ne yéen a ngi sant yàlla seeni cër yi na ci feeñ taxaw leen ci li neex yàlla sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam day ma yàlla ne woon kun min achakirin bokk na lu mu doon def mooy guddi da daan bàyyi ay nelawam taxaw ba tànkam ya néew yi ba xar ba bis sax sunu yaay Aïcha di ko wax moyow mi yàlla yónni xanaa yëgoo ne fàtte nga ne sunu borom nee na baal na la say bakkaar loo mas a def ak loo nar a def mu ne ko Aïcha afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk jaam boo xam ne buy sant sama borom kon nga la waay yal na yàlla boole ñu ci ñi koy sant guddeeg bëccëg yal na ñu yàlla boole ci ñuy sant xéewalam la nëbb ak la feeñ yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ñuy weddi ay xéewalam yal na yàlla wëlbati mboole mi ay yu nekk ci ñun ak ci mboolem jullit yi yal na yàlla wëlbati ko def ko jàmm def ko aafiya yal na yàlla barkeelal ñu suñu dund yal na yàlla boole ñu ak cantaakun yu mag ya ca mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nuux Ibrahim Moussa ak Isa yonent yàlla yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ay cant ñu daan sant seen borom la waaye di ko sant na ko yàlla ak yonent bi jàngalee paa na nga xamee ni ni noonu la ko ñu ca caaxaan yi de woote wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain